waaye nag tëggin ñi nga xam ne jamu taksir am na ko yooyu dañuy commencé jàng tey man ngaa jàpp ne man ngaa jàpp ne tëggin yi nga xam ne jamu taksir am na ko la ñuy commencé man ngaa jàpp ne vingt sept tëggin la am na ñeent yoo xam ni jamu xilla la jamu la mooy li ko commencé trois <coughs> ba ba dix dégg nga ñeenti tëggin yooyu nga xam ne mooy tëggin jamoo xil la yooyu ni jàng tey li ci des nag mooy jamoo kas lañ beneen dar suñu commencé ko ba mu yegg incha allah jamoo xil la mooy mbooloo moo xam ne trois la ba dix ñeenti tëggin la am tëggini jamoo xil la ñeenti tëggin la jàppal afulun afilatun أفعال أكفعلة أفعل أفعلة أفعال فعلة أفعل كم أكلب أفعلة كم أفئدة أفعال كم أسلاب عندك أف فعلة كم فدية أيها حباري إنهم فدية amano bi rabbihim ñeenti tëggin yi ñu mokkal la bu baax a baax <coughs> mu bokk ci tëggini jamu xilla afulun afilatun afaalun fialatun <coughs> léegi nag mën ngaa jàpp ne bépp ismu sulaasi wax moo wasfu bu ñu waxee ismu génneel waxuñ melo melo ak tuur du benn bépp tur boo xam ne ni ñetti xaraf la commencement bu ak digg ba yëpp wér mujj gi moom mën naa rag waaye commencement bu day wér digg ba day wér te nekkul mu daaf mooy amul ñaari xaraf yu niroo comme kafun gi firi tënk ñaari boo xam ne ñetti xaraf digg ba wér commencement bu wér amul ñaari xaraf yu niroo kooku jamu xill ba la cay xiyaas mooy afulun naka noonu bépp tur boo xam ne ni rubaa yi la ñeent araf la araf la ñu jigéenal ko nag te la njëkk muj ga di arf arfu madd maanaam alif wala waaw wala yaa lu mooy arfu madd comme ziraaun bi firi xasbu rubaa yi la ñeent araf la la njëkk mujj ga arfu madd la kooku jamu xilla ba la cee xiyaas muy afulun kon afulun foofu la nekkee xiyaas yi afulun foofu la nekkee xiyaas yi si jamu xilla si ñaari anam yi bépp ismu boo xam ne sulaasi la commencement ba ak digg ba weer te du mudaaf tëgginu jamu ba bul ci sikk sàkka afulun la ci jamu xilla bépp ismu boo xam ne rubaaci la dégg nga te amut taa amut taa la njëkk mujj ga maanaam rubaaci la ko te amut taa la njëkk mujj ga di alif wala waa wala yaa <coughs> tegginu jamu xilla ba afoon la ñaar yooyu la afoon lu nekkee tegginu jamu xilla maanaam na nekkee xiyaas jamu xilla sulaas yoo xam ne ñetti xaraf la commencement ba digg ba wér te nekkul mu daaf ak ruban yi boo xam dañ koo jigéenal ci lu dul màndarga la njëkk mujj ga di xarfu madd afilatun moom it nekk xiyaas yi ci bépp ruban yi boo xam ne nii ñeenti xaraf la waaye dañ koo góoral la njëkk mujj ga jaar fu xëccaan كم طعام نعم يعني تعرف لا لديك مجد أريف لا قياسي جمع بأطعمة لا أفعلة موتخ فؤاد قول نعم أفئدة أي قول بس كيو دين كو قول بعد بو جيس رأي موم بيبو وزنو بخم نفعال فعال كو afilatun rek la mën a am ci jamu moo xam jamu xilla ak jamu kasra mën ngaa jàpp baat boo gis muy ñu tëgg ko faalun wala fialun jamu boobu mu la jaaxal afilatun la afilatun comme dégg nga <coughs> dégg nga euh, euh, kisaawun ñu ne ak siyatun ah, da ngay changé kii bi yaa dañ koy changé aksiyatun moom duñ ko jamu lu dul loolu boo gisee ñu jam ci lu dul loolu rek xamal ne jamu boobu dafa jàdd xiyaas kon da jàpp ñaari bu baax boo jàppee ñaari rek yi des mën naa yomb <laughs> ñaari ngay jàpp mooy lan mooy bépp ismu boo xam ne sulaasi la maanaam ñetti xaraf xaraf bu njëkk wa ak wa ca digg ba wér dégg nga te du daaf jamu xillam ba afulun la loolu xiyaasi la naka noonu bépp ismu boo xam ne rubaaxi la ñu jigéen lay ko lu mandarga maanaam liñ koo jigéenal te amul mandarga taanis amul taaw taanis la njëkk mujj gi di at alif wala waa wala yaa mooy at fu xëccaan boo ba af'ulun la bu fekkee ismu bi rubaa'i la la njëkk mujj gi harfu xëccaan waaye dañ ko góoral kooku jëmoo xilla ba af'ilatun la naka noonu wasnu fa'aalun wala fi'aalun seen jëmoo xilla afilatun la bal sax ñoom seen jamu toujours afilatun lay doon lu mooy lu néew a néew maanaam boo gisee wasnu faal wala faal te jamu bi nekkul afilatun rek dafa jar de xiyaas <coughs> léegi nag bépp ismu boo gis afulun xiyaasu wut ca afilatun xiyaasu wut ca jamu xilla ba afaalun la jeex na ismu boo gis afulun du ca xiyaas ci jamu xilla afilatun du ca xiyaas ci jamu xilla moo cee xiyaas boo ko gisee mën nga tëgg afaalun loolu moo ciy xiyaas amma fialatun moom jamu xilla la waaye moom du was nu xiyaas yi moom samaa yi la jamu boo gis ñu def ko fialatun rek arab yi lañ dégg ñu koy defee noonu waaye natt amul fenn fu ñu koy nattee ba xam ne baat bi jamono bi fi'latun la war doon kon fi'latun moom samaay la ñett yi nga xam ne ñoo séddoo baati araab yi mooy af'ulun wala af'ilatun wala af'alun af'ulun bépp ismu sulaasi boo xam ne commencement ba ak digg ba dafa wér te du mu daaf jëmmu xilla ba af'ulun la bépp ruban yi boo xam ne dañ koy jigéenal ci lu dul mandargaay la njëkk mujj ko dee arfu xëccaan kooku afonun mooy jamu xilla ba moo cee xiyaas afilatun mooy rubaan yi boo xam dañ ko góoral la njëkk mujj gëdee arfu xëccaan kooku afilatun mooy jamu ba moo cee xiyaas naka noonu baat boo xam ne fi'alun la wala fa'alun kooku moom toujours ci afilatun lañ koy tëgg moo xam jamu xilla ba jamu kasra ba moo ci am afilatun rek lañ koy tëgg léegi baat boo xam ne nag afulun xiyaatu wut ca afilatun xiyaatu wut ca la jëy qiyaas mooy afaalun mooy qiyaas ci jëm mukalla ba fi'latun nag wax naa leen ne leen moom du qiyaas ci jamu yi maanaam samaa yi dafoo ko dégg jamuwul qilla al awal bu njëkk mooy af'ulun fa sukunun sukun la wala boog af'ulun am dëgg dañ ko fataa fa sukun topp wala boog fa sukkun topp sukkun mooy faa gi fa damun topp damu waaw maanaam hamzatun fa sukkunun fa damu hamza gi day ñëw bu ci tegu mooy sukkun af damu tegu ca waaye taridu dana xiyaasu fii kulli ismin ci bépp tur sulaas yi boo xam ne ñetti xaraf la saxiil faay bu wér commencement wala ay ak digg wala ñu daaf waaye nekkul defuñ ko mu daaf mooy amul ñaari xaraf yu niróo te nekk ala wazni faalun nag loolu waxuma kon waaye ci la bokk na nekk faalun bu mu nekk fi fu faalun lay doon bépp ismu boo xam ne faalun lañ ko tëgg bi fatin ci fataa fa sukkoon topp sukkoon te commencement ba <clears throat> ak digg ba wér amul ñaari fi niroo kooku jamono bu ñu la waxee def koon dangay ngay jël am da yokk ca commencement ba sukkoon faaga dàmmu digg ba rek am jamu ba mujj gi moom inra bu koy maas naxu kalbun xaj buñ la waxoon andi jamo xilla ba nga ne aklubun da nga jël am yokk ci fataa ko sukkoon kaafa xaj euh, kalbun bi laam nga nga dàmm ko rek nga am jamo bu mooy aklubun lu tax parce que kalbun tur la ñetti xaraf la xarafu njëkk dafa wér kaaf la bu ñaareel bi dafa wér laam la taamul ñaari xaraf yi niroo te faalul lañ ko tëgg moo tax jamo bi aklubun la dégg nga zabyun kéwal xam nga zabyun lañ ko tëgg xarafu njëkk beeg bu ñaareel dafa wér amul ñaareel daf niroo pourtant bu mujj bi dafa ràññee waaye loolu du koy yàq ba léegi afulun lañ koy tëggee waaye nag moom foo fekk faalun ngoo xam ne mujj ga dafa ràgg boo koy tëgg afulun da ngay dagg xarafu ràgg wa lu jiite xarafu ràgg ba nga kasra ko tamit muy af bin xam nga af bu yun la waroon a doon muy af xudun waaye yaa googu dañuy dagg ndax atnul maska wax dégg nga bu ko defee baagi tanwin mu nekk tanwin xewat mu af bin dal wun si wo ko faalun la commencement baag digg ba dafa wér amu ñaaraara fi niroo mujj gër bu ràggee da naan ko add adluun nga waroon wax waaye nag waaw googu da koy dagg kasara laam nga ko jiitu tan bi muy ay siwo azbin ay kéwél kooku af'ulun lañ ko tëgg wa maa kaan la nekk ne mi naw yi ci biir xeet waaw ye laam yi muj gadi <coughs> waaw aw yaa i yaa wala muj gadi yaa yooyu muj ga mënu nekk alif <coughs> tuksaru dañuy kasara ay na digg ba fi jami ci jamu ba bu tuxsafu ñu xasaf laamuhu mujj gëkk ma siyaat yi comme ni mu dikkee fil ilaali ci buntu ràggal danañ jàngal yu mel noonu lu koy waral maanaam wasnu faalun daal soo ko amee <clears throat> comme kalbun xaraf bu njëkk ba gis ne dafa wér bu ci digg ba wér mujj ga moom bul xool lu mu doon ñaari xaraf yi niroo gisoo ko ca jamoo afulun la bu fekkee ne xaraf bu mujj wala fa ràgg waaw la yaa su boobaa dégg nga mm, da dagg xarafu ragg wa la jiitu xarafu ràgg wa nga kasal ko tanwin loolu mooy mbir mi mu ne wasiza jàdd na aw juhun aw juhun xam nga wajhun lahun faalun la gaa waaye commencement ba dafa ràgg waaw la kon waruñ koo tëgg afulun aw juhun wajhun moo doon anam nga ñi tëgg ko afulun aw juhun kooku dafa jàdd xiyaas ak aku fun kafun lahoon kafu ñaari xaraf yi niroo la am kafu tënk ñu ne aku fu kooku dafa jàdd xiyaas lay xiyaas ci ñoom kay mooy afaalun ak faafun ayunun ay bët jamu aynun faalun la gaa waaye digg woo dafa ràgg kon ñu tëgg ko afaalun dafa jaade xiyaas aswubun ay yére bun la ñu ne bun ay yére kooku dafa jaade xiyaas aswaabun moo doon ci xiyaas aswaabun nag ñëw na moom sayfun jaase ñu ne asyufun kooku dafa jaade xiyaas ndax digg bi dafa ràgg moo saw bu ñëwee asiyaafun mooy xiyaas asiyaafun tamit dina ñëw xiyaas yi ba tey <coughs> kon su digg ba amee xarafu ràgg yaa wala waaw wala commencement ba am ko wala mu am ñaari xaraf niroo duñ ko tëgg af'uulun fuñ ko tëggee af'uulun rek loolu dafa jaar da xiyaas wa asyufun nag ñëw na wala bu asbu bu ñëw na fi xawli yi ci waxam fi mashtur rajas rajas bu ñu def mashtur mooy bu ñu dagg benn xaaj ba mu di kulli dahri min xad labistu athwuban hatta iktasar rasu qinaan ashaba xad labistu sol na asuuban ay yére li kulli dahrin ci ñeel bépp jamono hatta iktasar ba mu oddoo rasu bopp bi qinaan muuraay ashaban bu weex weexaay bu jaxasoog ñuul muy ashab maanaam solol naa jamono yére bu ne ba mujj solol ko yére bejjaaw nga xawlu ak xam-xam nga asuub woon la wax asuub kooku dafa jël xees aswaab mooy xees ndax digg ba dafa ràgg moo tax afon du ci xees wa xawlu ak xam fil basit ci basit nekk annahum asufun biidun yamaniyatun عبد مضاربها باق بها الاثر كانهم دفن يوم اسيوف اي جاسل كوك دفا جاد قياس بيد يواخ يمانية يكجوك يمان اي اسكنيكو يمان عبد جاسي اجي دق مضاربها اي دور كايم باق اي دسل بها شي دور كاي الاثر ملخيا جاسي فمي دور مغي ملخ ملخ ملخ مانكو دسم كون جاسي يواخ تل جو بيس <coughs> asifun ah, ah, foofu dafa jaata xiyaas kon bépp ismu boo xam ne faalu lañ ko tëgg commencement ba ak digg ba wér te nekkul mudaaf la cay xiyaas ci jamu xilla ba mooy afulun bu dee mujj gi dafa ràgg nga dagg ana fa ràgg wa la ko jiitu léegi nag yow man ngaa xoolal sa boobu tur yu bëri après indi jamu ba dégg nga boo <coughs> fi ismu rubaayin afoon tamit xiyaas la ci ism boo xam ne ñeenti xaraf la mu annasin buñ jigéenal bilaa alaamatin ci lu dul màndargaay te anis xabla axir yi njëkk na mujj ga mat duñ xëccaan mm, ka ziraun bii firi xasabu kooku dañ koo jigéenal waaye ah, xam nga ne amul alif maqsuur amul alif mamduud kon amul màndarga bu ko jigéenal eh, ñeenti xaraf la tamit kooku da koy tëgg af'ulun boo koy tëgg af'ulun nag da ngay jël baat bi ziraun nga yokk alif ci commencement ba sukkoon bu ñaareel bi dam mu xarfu ñetteel bi ci topp alif gi nga dagg ko sànni comme ziraun nga ne azruun yaminun ndeyjoor dañ koy jigéenal nga ne ay munun ay ndeyjoor hmm. da jël alif gi andi sukkoon yaa gi damu miim gi dagg xarafu euh, xëccaan bi xarafu xëccaan wala nga koy dagg si jamono bi toujours <coughs> ay munul wa sa shajaat dina afulun fi makaanin ci barab ñu ne am kunun ay barab nga makaan muzakkar la kooku am kinatun moo ci doon qiyaas parce que muzakkar la moo tax xam bu dee ñeenti araf moom bu dee muzakkar rek la njëkk mujj gi alif di xarafu xëccaan rek afiratun la kooku danañ ci ñëw léegi xuraabun baaxaañ muzakkar la ñu wax axrubun waaw axribatun moo doon xiyaas foofu shihaabun biddiw ñu ne ashubun xam nga ashibatun moo doon xiyaas ba tey yooyu muzakkar lañ buñ leen tëggee afonlun kooku dafa jàdd xiyaas kon bépp ismu boo xam ne faalu lañ ko tëgg xarafu njëkk boobu ci digg ba wér te nekkul mu daaf jamu ba afulun la jamu xil la ruban boo xam ne dañ koo jigéenal te amut mandargay te anis la njëkk mut gi di xëccaan kooku afulun mooy xiyaas jamu xil ba maa ngi ñëw ci ñetteel bi parce que moo dëppoo bu njëkk bi asaalisu ñetteelu mooy afilatun afilatun bi fatin ci fata fa sukunin topp sukun fa kasrin topp kasra afilatun kooku mooy ñaareel jëmu xilla ba fata alif gi sukun faa gi kasra ayn ga waaye tarid dana qiyaasu fi kulli ismin ci bépp ism muzakkarin boo xam ne muzakkar la rubaan yi boo xam ne rubaan yi la qabla axiri njëkk mujj maddun madd xam nga ism muzakkar boo xam ne nii njëkk mu dafa am màdd ñu jigéenal ko kooku af ulun laa la waxoon mooy jëmoo xilla ba mooy yaqiyaat waaye bu dee muzakkar la nag afilatun la wala makaanu am kinatun li nga koy dégg bëri na ba am kinatil makaan yi waaw loolu li nga koy dégg bëri na waaye am kunun kooku dafa nag moom xiyaas la waaye tere di kooku dana xiyaasu fii kulli ismi muzakkarin rubaayin boo xam ne rubaayin la qabla axiri njëkk na mujj ga maddun xaccaan ka taamul ñam bul sikk sàkka gis nga ko muy ñeenti xaraf la njëkk mujj ga di alif rek waxal noo koy defee afilatun da ngay jël am zagi moom toujours taa gi nga sukkoon ko ayn bi nga kasara ko xarfu xiccaam da nga koy dagg mim nga nga fatxa ko maanaam xaraf mujj da nga koy fatxa yokk ci taa moom atimatun raxiifun mburu nga ne arxifatun da ngay rek yàgg rek def wala mën a wax yokk ci taa arxifatun ay mburu umudun kenu nga ne amidatun ay kenu amidatun ay kenu umudun أعمدة سندل بس كلن جيكم مجد دفع دفع معرف راك كون أخيرة تي ربع إلي دوكو بخام لنكو غورا لن جيكم مجد نيك حرف قتشان نك لاخ ويلتزمو دان انتقو وزنو بي مو أفعلة في فعال ولا فعال بفتح أولي ينغ فتا عرف نجيكو أو كسري ولا نغسركو بو فتا مو فعال بو كسرا مو فعال waaye nag ci kaw ñaari takk-takk yoo xam ni ba may tënk waxuma ko mooy mu daaful laame na fekk mujj ga di mu daaf mooy ñaari xaraf yi aw muxtalluha wala mu ràgg aw muxtalluha la dafa mel téere bi lam bi ci taagi aw muxtalluha la <coughs> mujj ga maanaam fi'al goo mën a gis ci langue arabe mujj ga ràgg yokk ci loolu ولا حرف نيار حرف نور أمج جمع بأفعلة رجل آخر وهم في عال قوم من الجس ولا فعل قوم من الجس ديت في عال قوم من الجس ولا فعل قوم من الجس مجرق ولتك تكرش ولا نيار أم نيار حرف نور بعد بأم نيار حرف نور كوكو جمع ممدونة كل موي أفعلة بكون كل هذا في جار خياس وأنا <coughs> تكوم مجرق wala moo am ñaari xaraf yu niroo ka bataat xam nga téere bi tabaat la waaye bataat la bataatul mooy ay bagaas bataat mooy mataaul bayti bagaas yi nekk bataat xam nga am na ñaari xaraf yu niroo ñaari taang fa bataatun ñaari taang fa soo ko doon def jamu xilla afiratun nga koy tëgg jamu kasre afiratun moom toujours afiratun lay doon ndax daf di faal boo xam ne ni dafa mudaaf la mujj ga mudaaf la maanaam mm, taa ga nekk ci mujj ga moo nekk ci digg ba rek moo ñëw avant alif ki <coughs> loolu mooy mudaaf la ñaari alif niroon dafay fekk xaraf ci mujj ga mook ba ci digg ba ñu niroo loolu mooy mudaaf la maanaam xaraf ci mujj ga daal ñaari yoon la ñëw léegi boo ko daan def afinatun da ngay indi am sa bataat sukkoon arfu ñaareelu taage nga kasara xam nga damaa waxoon la ngay dagg alif ki après taagu mujj gi nga fataa après yokk ci taa dafay nekk ab titatun léegi nag ñaari taa daje ab titatun ñaari taa daje ñu jël benn bi sadd ci benn bi waaye nag taagu gu njëkk gi balaa nga koy def sadda moom ngay def sadda da ngay jël kasraam gi nga jox ko baaga dafay def ko mu nekk abit tatun waaye cosaan li ab ti tatun la woon ñu def ko kasra kasraam gi jox ko baaga nga jox ko baaga muy abit nga ne ko sadda nga ko sadda loolu moo andi <coughs> zimaamun nos ko azmimatun la woon muy afilatun waaye ñu ne mim gu njëkk gi kasaraam gi jox ko zaay ga muy azimmatun nga pare nga def ko sedda moom muy azimmatun ay nos ko lu tax parce zimaamun mu daa fa laam la xibaawun mujj ga dafa ràgg xibaaun xam nga xibaa yun la woon rek <coughs> comme nañ ko jàngoon ci xiyaasi jamu kii kii wasnu mamduud def ko xibaaun mujj gi def ko yaa jamono ko indiwaat nga indiwaat yaa ga doon cosaan nga ne aqbiyatun waaw alif gi koy dagg am da gii ko ci yaa ga ci mu nekk aqbiyatun kisaaun moom kisaa wun la woon waaye xam nga la jiitu yaaga la am jege dafay kasra moo tax nga delloo ko ci yaa rek moom toujours daal cosaan lu mu doon daal yaa lay doon kisaa wun la woon <laughs> mais ak siyatun doo ak siwatun parce que waaw gi kasra ko jiitu kisaa un ak doo wax atun parce que am jege nga delloo ci xar yi def ko yaa ndax lan ndax lu cosaanoo man a nekk rek bu dee waaw la kasra kon dañ koy changé yaa bu dee yàlla nga bàyyi fa ak si yëtu kon faal goo mën a gis wala faal goo mën a gis nga xool mujj ga mu ràgg di changé nañ ko def ko alif moom dur nag te bu ràggee moom dur dañ koy def boo xoolee mujj ga mu ràgg wala nga xool gis ne xaraf boo nekk ci mujj ga moo nekk ci digg ba jamoom afilatun rek la mën a doon ak jamo bu mu mën a doon wala yujmaani duñ leen jamo ñoom ñaari baat wala faal ala gayrihi ci lu dul afilatun illa shuzuzan lu mooy ci jàdd bu amee rek dafa jàdd xees <coughs> kon wax mooy faalun koo gis rek nekk <coughs> dig faxal moom bu ñu ko waxee rek sulaa si la digg ba wér commencement ba wér amul ñaari araf yu niroo ak moom lañ koy tëgg mooy xiyaas jamono roban yi boo gis ñu jigéenal ko te amut alaamatu tanis alaamatu tanis yi mooy alifu moom duun maqsuur ak marbut la njëkk mujj ga di xarfu xëccaan alfuqataan alif wala wala yaa buñ ko jigéen ne rek ruban yi googu jëm moom afulun lay doon ruban yi goo gis nag la njëkk mujj gi daal alfuqataan ñu góoral ko kooku ismu ruban yi nag laay wax nag afilatun lay doon jëmu xilla ba na ko noonu fiaalun wala faalun goo mën a gis am ñaari xaraf yu niroo maanaam xaraf ko ca mujj ga moo nekk ci digg ba mujj ga nekk mu daaf wala mujj ga ràgg rek kooku moom afinatun kese lañ koy tëgg léegi nag asa asaani ñaareel ba tama ñetteel ba ci dama ko jàngalee mooy afaadun bi fatin fa suk fa sukkoon ci fata topp sukkoon <coughs> waaye kon nekk jamono di jamono di kulli maalam yettarit ci lépp loo xam ne xiyaasu fii ci moom afaadun asaabiqu bu jiitu dégg nga afaalun tamit xiyaasuwut ci lépp loo xam ne afaalun du ci xiyaas afaalun du ci xiyaas rek afilatun kon afaalun lay doon kasoobun gi fee yére asbaabun ay yére sayfun jaase asiyaafun ay jaase xemlun xam nga xemlun fexlun la ab sëf mooy lu ñu yendu lu ñu yenu bi kasin fa sugoon nga ne suur bu ndigg bi damin fa sugoon nga ne aslaab baabun bunt nga ne abwaab da delloo alif bi ci cosaanam sababun buum bi fatatay ni si ñaari fataay asbaab katifun mbagg bi fatin ci fataa fa kasin topp kasara nga ne ak taaf ay mbagg adadun pëdëg mooy gannaaw conc bi jëm ci mbagg ma ahdaat ay pëdëg <coughs> junubun dafay firi aji jege dafay firi aji sorit bi dem matee ni jamoo xilli bi nekk aj naat rutabun jamoo bi bi fatin ci fataa mooy ay tàndarma yu tooy jamoo bi artaab ibilin bi kasratee ni si ñaari kasra ibilin gërëm jama bi a baal baal nga waxoon waaye xam nga da ñaari am dida da nga jël benn bi def ko benn muy sadd a baal <coughs> dilawun bi kasrin topp kasra fa fatin topp fata mooy euh, faar wet gi faar yi jama bi ak dilaa hmm? dégg nga wa ay cuuj fi xawli xute a mooy kat ماذا تقول لأفراق بذي مرخ زغب الحواسد لا ماء ولا شجر من ماذا تقول لا وخ لأفراق يلتوج بتخ بذي مرخ ينكجا ذي مرق زغب الحواسد يو dégg nga weex ay biir zoxu mooy yoo xam ne ni dafa am lu weex ak lu ñuul day wax pitax yooyu nga xam ne laa maa un amuñ ndox wala sijarun amuñ garab pitax yooyu mar doomi pitax yooyu xam nga farxun kooku gaa afruxun moo ci xiyaas ndax ismu la فعل لنكو تجو كما اسمع بده غير الجذبة كان أمر لهم نتاني دفكو أفرخ وهي دنكو ريف أفعال كوكو دفجة الخياس كما شجد كون مجادة أحمال جمو حمل أحمال جمو حمل مهم أحمال لا أقول حمل لنيانو كوكو أحمل مرون قياس بفاتن في السكون حمل أمبواه li xawli taala wa ulaatul ahmaali borom ëmb yi ajaluhunna seen diir an yadaana xamlahunna xamdu la def jamono bi ahmaal kooku it dégg nga jaarul kon nga jàpp daal lépp loo xam ne dégg afulun du ci xiyaas afilatun du ci xiyaas ci jamoo xilla bi afaalun lay doon waaw kon baati rab yaa ngi noonu defe naa ne bu ci nekk rek lay jamoo xilla ba jàngal na ko araaboo ñeenteel ba tamit mujj ba kooku moom du xiyaas yi mooy fi'latun <coughs> bi kasrin ci kasra topp sukkoon wala mu tarit moom xiyaasu wut fi seen ci dara fi'latun moom xiyaasu wut jam wasnu jamu xilla la waaye xiyaasu wut moo tax sax mu jamu la turu jamu waaye du jam bal li mu nekk sumea dégg nañ ko fi alfaas ni ci ay baat yooyu baat boo ko dégg mën nga ko def boo ko déggut boo ko def minha chiixatun jamu cheikhun cheikhun mooy sëriñ ñu ne chiixatun sëriñ si jamu xilla ak siiratun jamu sawrun gi firi yëkk sawru moom aswaar mooy xiyaas ba ñu ne siiratun def ko fi'latun fityatun ay waxambaane jamu fatan fityatun sibyatun ay xale jamu sabiyun sabiyun ak sabiyatun xale bu góor ak bu jigéen seen jamono yi ne sibiyatun kooku ci xiyaas xilmatun ay xale yu góor jamoo xulaamun sinyatun mooy ñaareel jamoo sunyun sunyun ñu ne sinyatun bi demil awal da ngay dem bu njëkk bi aw kasri wala nga kasra ko sunyun wala sinyun woo moom asaani mooy ka nekk ñaareel fi siyaadati ci sang nga moo topp ca sang ba mooy sun yun mooy sin yëpp sin yun baat dañ leen dañ cee dégg fi'latun waaye fi'latun moom du xiyaas ci benn ci benn jàmm waaw mm-hmm. xam nga cheikhun kooku asiyaaq moo si doon xiyaas sawrun aswaar ndax seexun digg bi dafa ràgg sawaruñ digg bi dafa ràgg fatan kooku nekkul faalun faal la dégg nga afta u moo ci doon xiyaas sabiyun wala sabiyatun <coughs> kooku afaal nga ko doon def rek muy asbaawo comme ni ñuy waxee aftaaw jamoo bu nekk aftaaw ci fattiyun xelmatun waaye yi ci fi'latun su ko defee bu yi ngir ñàkk xiyaasoom xii la ci dañu wax ne indoona moom ismu jamin la waaye laa jamoon du jamoon ان شاء الله كن جمع قلة نلا أفعل أفعلة أفعال فعلة أفعل أفعلة أفعال فعلة بيب وزن بيب اسم اسم بوخامن فعل لنكو تك كما اسمع بغير ديك بتني كون مضاف كوكو افعل لا بيب رباعي بوخامن لنكو جيجينال تي مان رغا جيجين la njëkk mujj di nag te njëkk mujj di xarfu xëccaan kooku mën gis ci langue arab mujj ga di mudaaf maanaam am ñaari araf yu niroo maanaam xaraf bu ci mujj ga daal ñëw ñëw na ci digg ba <coughs> wala boog mujj ga ràgg yooyu eh, nag da nga fay gis hamzatul mamduud afilatun nga koy tëgge jamoom moom lu mën a doon afilatun la foo ko fekk rek jamoom afilatun la lu mooy lu jàdd xiyaas waaye hmm, nag alif googu da koy sax def ko yaa dégg su ko defee nag hmm, lu dul ñaari tëggin yooyu maanaam loo xam ne afilatun xiyaasu ci afulun xiyaasu ci jamoom afaalun la jamoo xilla afaal danay nekk jamoo tak kasra di nekk jamoo xilla <clears throat> waaye lu afulun qiyaasuwut afilatun qiyaasuwut ci la def ko afaal fi'latun nag moom samaayi la baat boo dégg arab yi def ko fi'latun def ko buñ ko defut nga bàyyi ko su la jamu am jaay tey jàng nañ kaat yi nga xam ni ñoo ci nekk jamu xilla mu des vingt trois yoo xam ne jamu kasra la incha allah ci yeneen i darsu eh, ci kàttanu yàlla dinañ ko topp benn ba mu jeex hada yuridu islam mastata'tum tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh